donc ñun kontaan nañu ñu ngi félicité le président de groupe ak non inscrit ci texte bii nga xam ne nii indi nañ ko waxtaan ci ba juboo ci ba d'accord ci bu ko defee ñu dem ca kanam dem ci li nga xam ne nii mooy li nga xam ni moom la sénégalais yi di xaar ci assemblée nationale donc encore une nouvelle fois ñun ñu ngi réaffirmer suñu kontaan ak suñu confiance bi nga xam ni jox nañ ko suñu président du groupe yabal ko mu def liggéey boo xam ne nii liggéey bu am solo la ndaxte nag ñii di wax ñëpp surtout ñi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk group lépp lu ñu mus a def dañu ko waxtaanee en groupe position groupe bi moom la président indi moom la défendre ba participer activement ci texte bi nga xam ne ni tey moo ñëw à l'Assemblée nationale kon ma bëgg a wax ni le groupe liberté démocratie et changement jël na ay responsabilités comme ni mu ko daan jëlee bi ñu ubbee assemblée nationale ba léegi xool fi nga xam ni fi la askan yu bëgg a jëm mu jëm fa ànd ak moom loolu mooy lan mooy ñu defaraat la règlement intérieur de l'Assemblée nationale ëllëg nag bu ñuy citer les responsabilités ñu xool lan moo ñu def ba ñu indi fii waaye li am solo daal mooy tey fii ñu agsi ñun loolu la ñu mus a def bu ngeen gisee ay collègues déposé ay proposition de loi ay ay proposition de loi à l'Assemblée nationale ci sens boobu ci la jëmoon kon ñun ñu ngi féliciter tout le monde di wax ni nañu digne à nos te bañ a def ay calcul politique wala di xool leneen loo xam ne nii ñëwagul li am solo mooy li ñëw nu taxaw ci taxawaay bi nga xam ne ni mu doon ci war a taxaw ba askan wi duñu jëppi te suñu groupe foofu la nekk ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. merci la parole est à notre Je rappelle qu'il est possible de prendre la parole à partir de votre siège. C'est une possibilité. Merci. mbokk yi nuyu naa leen sama président groupe parlementaire dafa dajeek yeneen ñaari président groupe parlementaire waxtaan jubóo ñetti président groupe parlementaire yëpp euh, ñetti groupe parlementaire yëpp waxtaan juboo kon tey mënoon nañ wax ne bu ma ñëwee tey du ma def motion préjudicielle waaye ay principe ay principe rek la principe nord mooy principe nawet principe janvier mooy principe décembre wala juillet fii laa yàgg wax ne ay député mënuñu dugal ay proposition kenn du leen traité yeneen député dugal proposition ñu ne ñukk proposition yu ko jiitu ñu waxtaan ci seen proposition loolu du dëgg ñetti président yépp laay interpellé président assemblée nationale laay njëkk interpellé parce que c'est sa première responsabilité c'est sa première c'est ça bu amee moom la waaye itam samay mbokk député yi di gis injustice di am tey ñu daje fi pour corriger une injustice une fraude au règlement intérieur waaw bu ñuy corriger injustice waruñu def injustice waaye assemblée bi bu nekkee sama intérêt sama yoon newu ci le 17 mai 2024 la dugal proposition de commission d'enquête parlementaire sur la situation environnementale de la Falémé 17 mai or règlement intérieur dafa wax ne chaque proposition bureau bi da ko war a waxtaanee ba pare mu bind quel sort il va réserver à cette proposition bu ko neexee ne proposition bi baaxul mais da nga ko war a bind mais président Lamine Thiam dooma euh, euh, doo ko mim président Ayib du ko mim lan moo tax ma dugal proposition sur la situation environnementale de la Falémé 2019 organisation mondiale organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ne 2019 la Falémé est en état de mort clinique man ma dugal 17 mai pour ñu taxawal fii ci assemblée bi commission d'enquête parlementaire dëkk yu nekk Falémé yaa ngi dee kenn waxu ci dara tey ñu ñëw di waxtaanee mbiru règlement intérieur ngeen fa ne dëgg la te sama bos moo njëkk a dugg. deuxièmement 6 mai 2024 ma dugal beneen proposition commission enquête parlementaire yéen ñëpp dégg ngeen ñu ne ay journaliste ne Nestlé Nido ak Cerelac bi nga xam ne Nestlé moo koy defar suukar bu muy dugal ci Nestlé ci Nido ak Cerelac bi muy jaay Sénégal. moo ëpp suukar bi muy dugal ci nido ak céréales bi muy jaay France wala Royaume-Uni wala Allemagne ma ne nañu taxawal commission d'enquête parlementaire pour xool ndax dëgg la ndaxte suñu doom ñoo koy lekk te suukar la te suukar baaxul ci yaramu nit rawatina ci yaramu xale on n'a jamais pour pourquoi ngeen toog fii di ko seetaan le 7 mai 2024 ma dugal commission d'enquête parlementaire sur la situation des travailleurs du fonds d'entretien routier autonome FERA plus de vingt mille travailleurs six mois sans salaire huit mois ñenn ñi ñu ngi ci douze mois sans salaire assemblée ne yoonam newu ci du ci yëy du ci yàppi mais moo tax ma dugal motion préjudicielle pour ne du yoon d'accord na dañoo war a examiner proposition bi mais dafa am ay propositions yu ko jiitu lu tax duñ ko xool et ça concerne les enfants sénégalais les nourrissons sénégalais leur santé ma dugal le 7 mai le salaire des travailleurs du FERA 7 mai la situation de l'hôtel et des travailleurs du King Fat Palace plus de 70 pères mères et soutiens de famille licenciés ñu ne duñ ko xool le 7 mai la situation du programme des jeunes xëyu ndaw ñi commission d'enquête parlementaire ñu ne duñ ko xool le 30 avril commission d'enquête parlementaire sur la sur le matériel agricole les semences et les engrais subventionnés ñu ne premier ministre na ñëw na respecter constitution d'accord waaye ñun dañoo war a bale d'abord suñu kër lan moo tax duñu respecter règlement intérieur c'est inacceptable je propose donc l'ajournement merci le président de la commission Vous avez la parole. monsieur le président sunu sunu collègue bi mu ngi wax mais mu ngi interpeller le bureau en tant que président de la commission des lois tey li ñuy examiner mooy loi bi li nga wax du ñàkk boo jekkoog bureau bi ils vont apporter beaucoup plus d'éclairage par rapport à cela di rafetu lool ni kàddu gi tey moom yiw na lool dal na sedd na xëy na ci diggante bi soppite dem ci nguur gee ko waral ñu ngi rafetlu sunu xarit li ñu def seen rôle la waaye ma fàttali ni dañu nekk ci vacance parlementaires li ñu defoon pour mu mën a yell il fale mu am lu ko accompagner en terme de signature pour que mu mën a yegg